nuyu bu baax te leen siyaar di jiital si nuyoo bi saahibul fadila mawlaana cheikh Mouhamadinil Muntaqa xafisahu la waraa waaye itam di nuyu mboolem kilifa yi di nuyu fu ñu mën a nekk di ñaan borom bi tabaaraka taala defal leen tawfiq ak taysiir kàttan na leen ba ñu jubloo liggéeyu lislaam lépp borom bi defal leen si lu kawe njort ñu ànd ko ak taalibe yi mbokk yi niñ baaxoo di ànd ak yéen ci waxtaanu safar si suñu émission bii di yaru ak yare tey ñu dalal tëdd gu màgg goo xamante si ni moom xam ne xam ne yu naan taarif du ko ñuy présenté ndax xam nañ ko ci liggéeyam ci daawa bi ci yaatal ci jàngale ci jumaa yi ak ci télévision yi lépp ngir liggéeyal islaam am taxawaay bu ama am solo itam ci yoonu murit ci jàngale Serigne Touba waaye nag di ko teg ci eh, yoon woo xamante si ni du sàkk muy mbokk mu tedd sëñ Seex Euh, aw ba liggéey moom lañ fa yéene dalal tey suñu émission yaru ak yare di waxtaane nag tomb bu am solo mooy loo xam dafa jëm ci wàllu jaamu yàlla mooy sëriñ Touba ak jàmm yàlla bi maanaam ak fonkam jaamu yàlla lim ko jariñoon lim lim ko jaraloon ci ci ci ci waxtu yëpp danañu si indi incha allah tabaaraka wa ay bind yu am solo ngir lan taalibe yi man see roy Mawlana Cheikh Ahmad Khadim ci taxawaay bi nga xam amoon ko si jàmmu yàlla ginnaaw boo xamante si ni suñ Cheikh Awa Balla Gaye nuyoo na bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu wa ashaabihi wa man wala Sëriñ Mbàkke noo ngi lay nuyu di jaarale ci bi nuyu bokk yi nuy seetaan yëpp di nuyu waa kër gi tàmbalee ci bopp bi ba ci suuf di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiix defal nu ko te yaatal ko ba mu romb fa nga xam ne fële seen jot nekkoon di ñaan itam bis bii nu jublu yàlla delloosiwaat ko at yu bare bari te fekk nu ci ak wér ak wérle jërëjëf macha allah si Cheikh noonu nga nuyoo lu am solo la ndax itam ñi nga xam ne ñoo ñu jàppandal liggéey bi muy euh, C3S compagnie Serigne Seck Sénégal si ci taxawaay boo xam ne Cheikh Mouhamadou Fadil am na ko si ak suñ daam yi nga xam ne euh, ñooy coordonné liggéey bi lii possibilité la ci tasaare lislaam ak itam euh, jàppale jullit yi ngir ñu mën a dégg seen dina xam fi ñuy teg seen tànk di ñaan borom bi tabaaraka taala gën leen a taxaw tey nag ñu tànn tomb bu am solo si ni ñu leen ko waxee muy jaamu yàlla te ko ne xam ne ni jaamu yàlla borom bi tabaaraka taala moom la digal yonte bi alayhi salaatu wasalaam moo wax tax ma bind leen wa kun min ash-shakirin wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yaabudun wax na ne ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma te itam yonente bu mu mësa yónni lim lay digal mooy na wax xeetu ni leen nañ jàmm yàlla te wéetul ko laqad baasna fi kulli ummatin rasula an ubudullah wajtanibu taaxuut ku si mel nag si Ahmadul Xadim loolu mu dégg ko diggir woo xam ni wu wu jéggi la waaye taxaw si nag taxawaay boo xamante si tam incha allah si aw Awa Balla danañu si dikkal dikk ki nag mbokk yi li tax ñu tànn ko wax nañ ko ay yoon yoon sëriñ moom def na li ko war lépp ci diggante ak boromam ci jaamu yàlla liñ siy waxtaane pour que taalibe man ko seero yi eh, bu mën a jariñu mën a teg seen tànk ci siraatul mustaqim kon sëñ Cheikh Awa Balla Cheikh Ahmad al Khadim radiyallahu anhu ak jaamu yàlla eh, jërëjëf sëriñ Mbacke xafisaka allahu wa Mawlana Cheikhul Khadim bu ñu koy xamle ci googule anam dañuy wax ni moom aynul ibada mm-hmm. dafa mel ni ñëwul woon ci àddina lu dul def ndigalul borom bi te def ndigalul borom bi moo di jaamu ko ndax nee na bi ma leen bindee dara taxul ma bind leen lu dul ngeen wéetal ma te dëggal ko ci seeni jëf mm-hmm. sëriñ bi ñëw jël dundam gépp itam jox ko boroomam waaye jaare ko nag ci jaarukaay ba muy ki mu yónni woon ci nun muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ni yoon wi mu jaaroon xam na ni mooy yoon wa jëm ci yàlla kon dinaa ko dundal teg ko fa nga xam ne fa la ko doon teg il Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu nee na tànn gi ñu ma tànnal turu ahmad gën na maa yóbbu ci bëgg ki ma tudde ba tax na lim fi indi woon danaa ko yeesal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yónni wan rek mu nekk bashiran wa nazira di bégloo nit ñi ci lu leen tax a sawar ci jaamu yàlla di xupp nit ñi ci luy tax ñu ragal mooy yàlla ba ñi ko xam ñépp lu ñu jege foofa sëriñ bi moom dafa nekk majbul bil ibada dafa genn àddina rek ci ñaari waajur yoo xam ne da leen a fekk ci jaamu yàlla nga xam ne milieu bi mu dund nit mënu faa dund lu dul yàlla ci ñaari wet yépp ak wet gu mu boo ko mën a askane ba tax ba muy ndaw rekk la tàmbalee jaamu yàlla ni ñu waxala woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaamul Buseyri alifa nuska wal ibadata wal xilwata tiflan wa hakasa miinoon na jaamu yàlla tàmmoon na jaamu yàlla ba muy nekk tiflu ba muy nekk yaafian ba muy nekk sayxan jamono bu nekk jox na yàlla aqam ci wéetal ko ak jaamu ko mu jàngale ci nag jàngale mu am solo moo xam ne nun taalibe yi war nañ koy nafaraat sëriñ bi dafa ñëw nii dama bëgg ki yàlla yónni muy rasulullahi sallallahu wa sallam ndax mooy yoon wi nga xam ni ku jaare yàlla feneen doo wéy mu ni kon foofu lay jaar aqsamtu billahi inni li nabi abadan xillun wa hibbun wa ma abaawu nabiyuna al mustafa gayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma abaaw ya abaaw mu ni maa ngi wàcc yàlla ni yonent bi bëgg naa ko bëgg gi lu muy tekki mooy lu mu bëgg danaa ko def maanaam lu mu bëgg bëgg naa ko lu mu bañ bañ naa ko loolu lu muy jàngale taalibe bi jóg ni bëgg na sëriñ bi sëriñ bi jàngal na ko aw bëggin nee na ko aw bëggin mooy ki nga bëgg lu mu bëgg ngay bëgg lu mu bañ ngay bañ kon taalibe foofu rek sëriñ bi nee na ko bul def lu dëppoo wut ak li ma bëgg te man li ma bëgg mooy yonent bi wax naa la ko li ma bëgg mooy jëf yonent bi wax naa la ko kon jaamu yàlla gi mu doon nekk mi ko doon def waaye mi ngi ci doon jàngale ni ku ko yaakaar wala ku ko gëmit cooco war a jaar ci xeet yépp ndax moom dafa dajale mbooleem xeeti jaamu yàlla yi benn bu nekk mu jox ko àqam ba boo ko ca fekkee dangay ngay defee ni bi mu fii ñëw gi képp taxoon buy julli da ngay defee ni julli képp ko taxaw na jóg ci ponk gum ko ponk di ko wutal ay yére di ko waajal balay ñëw dina ko waajalaat nga xam ne nii du am benn waxtu boo xam dana ko julli ci njàpp moroom ma masha Allah wala mu julli ko ci mbubbum moroom ma kon kooku jotu jotam lépp daf ko mayeen julli eh, noonu mu ko defee la ko def ci alquran noonu la ko defee ci jàngale noonu la ko defee ci julli ci yonent bi ba xeeti jaamu yàlla yépp dañ moo waykat ba doon na ko melal bi mu ko robbee jëm ci jàkka ja mu ni kii day yaqumu layaali raakian baada sawmihi yusalli imaman bil malaafil masajid yi nee na sëriñ bi métier mooy jamono bu nekk ma ngay baagante jàkka ja te mooy jiite jamono bu nekk ma ngay woor bëccëg ya loolu Cheikh Moulay Bousso moo ko waxoon. Hmm. te bi mu ko wax mi ngi jàkkaarloo ak moom. Euh, keneen wax ni. wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa nabul wara fi subhihi wa masaihi hmm. sëriñ bi amul benn ayib hmm. lu dul ñaar ñaari ayib la xam ci moom mooy ibadatu rabbihi jaamu boroomam day bu dee ayib ayib la ci moom jariñ bindeef yi mooy ñaareelu ayib bi kon sëriñ bi ñi ko fekkee woon doon ko gis hmm. ñoo ko melale anam googule hmm. wane dundam yépp jaamu yàlla la woon hmm. dundam yépp digle woon jaamu yàlla la ba ñi nga xam ne dañ koo déggaloon te nekk ak moom noonu la ñu meloon dañoo bàyyi woon seen bopp ak yàlla borom bi subhaanahu wa taala lu ñu gis ni yàlla bëgg na ko danañ ko def ngir yàllaa leen ko digal waaye daañu ko def ngir wut ci mbégum sëriñ Touba. ndax xam ni kii Euh, ku nekk ci li yàlla digle dana la bëgg dana la safo te ñoom lool rek lañ doon wër moo tax ñu taxawoon ak jàkka ya taxawoon ak alquran taxawoon ak koor ya ca jamono yi tàngoor ñoom ñëpp loolu la doon nekkee dinaa ci joxe benn misaal Mawlana Cheikh Abdourahman Lo euh, wala afan euh, ci taxawkati guddi yi la bokkoon moom itam Maam Mor Jaara dafa bokkoon min xaw min ñi taxawal guddi nga xam ne guddi yëpp dañ koy naafila ci naafilakat yu mag la bokk sëñ Basiru tudde leen woon rukaabu leyli macha allah nee na dafa mas a bind benn bataaxel rukaabu leyli mooy ñi nga xam ne guddi la ñuy jël def ko muy waruwaay hmm. ñoom guddi du leen war bu gaa yi tëddee si lali daal ñoom ñu war guddi du leen hmm. jël guddi inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa xaafu fitana nadaruha falamma alimu annaha laysat li ayin sakana jaaluha lujjatan wattaxasu saalih al ahmali fiha sufuna ñooñu ñooy gaa yooyu maanaam gaa yi ñooñu dañoo gis ni àddina hmm. bi du dara hmm. ab rombukaay la ñu daal di jël jëf ju baax kese hmm. muy seen warwaay bi ñuy war jéggi dem fossé àddina bañ koo paareeti foofu la ñu nekkoon ñoom gaaya loolu la sëriñ bi doon jàngale te gaa yi mokkal ko lool nag. macha allah gaa yi mokkal ko lool bu mu la nax mukk léeg-léeg nga gis ku tuddoo sëriñ bi jàdd yoon la. loolu bu mu la nax. Eh, bu boobaa bul ci ayibal yoon bi bul ci ayibal sëriñ bi ndax balaa waajee nekk ci yoon wi nekk na ci jullit gi kon day mel ni kon boo ayibalee sëriñ bi ngir ne waa ji du jaamukatub yàlla mhm. war ngaa ayibalee lislaam mhm. ba ca ka indi woon lislaam mhm. ndax waa ji li muy def kookaa ko fi indi woon waajee sikk daal waajee sikk kon sikkam soosu day yem ci moom képp waaye dara sëriñ bi mënu ko ci layal wisra uxra kenn mënta teg sa bàkkaar keneen te jëmmi sëriñ bi it nit ñimewu ko sax yaakaar naa ni def lu neexul yàlla ba noppi wéer ko ko jàpp naa ni aw fit àggu ko it aw fit àggu fa nit daal bu boobaa la muy jaamoo yàlla mooy xam ne li muy def moom moo ko def moom képp waaye sëriñ bi moom ka cet ko co jegewu ko fenn loolu nag ak jaamu yàlla la ak bëgg sëriñ bi li itam mm-hmm. waaye wéer ko sëriñ bi nag moom ak mu yàlla la allah ak mooy yàlla la ak di ko woote li ñu tuddee ak euh, wilaaya li ñu woote woote woote yu bari la sëriñ bi tere woon doona daawi wa inkaaril maqaamaat yi na gaa yu baax yi du ñu woote wilaaya du ñu weddi ay maqaama lu tax du ñu woote ay wilaaya dañoo feesal ndab lu fees du aajowoo def leneen eh, ndab yi feesul nag fu ñu eh. toll dañuy wëgg lu ca dem bëgg lu ca delluwaat te fekk na ndab laa feesul rek koo ci gis muy bajantu rek daa féetul suurul yaakaar naa yéen ñi rey yar xar xam ngeen ko xar mu suur ba suur ba ëpp yaakaar naa du bajantu noonu la mel nag ci nitu yàlla yi koo dégg coow la bari ak xëcc ba bari rek mm-hmm. mooy demagul fen waajagul sëriñ bi nag dafa waajaloon gaaya mm-hmm. ba nga xam ne nii euh, dañuy melal waa kër sëriñ bi bu ñu mësaa toog fi moom mm-hmm. na waa su kisu xursul sëñ Bàkki bu so noonu la leen wax nee na dañuy jett seen loos ya mel ni dañoo muuma dañoo muuma wallahi te fekk na al issatul ilahiya mooy li leen muumal ñi ma ñoo yëkkat seen kàddu ci kanamu sëriñ bi ñi ma ñoo siggi xool seen bët ci kanamu sëriñ wa ma rafaxul aswaata illa bi sikrihim loolu la leen xaadima jaxate melaloon nee na seen kàddu boo ko déggee rek tudd borom bi la subhaanahu wa taala bu ñu siggee rek xamal ne ca rukkoo ya la ñu nekk te kat la ñuy man mën a def loolu jaamu yàlla gi dara lu ci manqué ay liggéey kër lañu lu nekk lañu xanaa ñoom la Cheikh Ibrahima Diop Massar di tagg di wax ne yatluuna daban kitaaballah kitaaballahi moo ilal masajidi tardaadun fa tardaad wallaahi baagante jàkke yi mooy seen métier ak jàng alxuraan ak jàng alxuraan waaw ñim yaroon ak bëggante dañoo bëggante woon ba kenn ku ci dem sa kër moroom boo ko xoolee loo xemam boo ko xoolee booy dem mu jox la ko hmm. jarul nga di ko laaj boo xoolee façon waa ji rek buy dem da ko yeewi hmm. li yóbbaale ko noonu la ñu meloon boo tuddee sëriñ bi li fi nekk ñu jox la ko noonu la ñu meloon ci sëriñ bi kon sëriñ bi dafa doon jaamukatub yàlla te jaamukatub yàlla boo dee rek moom da ngay jaamu yàlla loolu moo tax mag ñi nekkoon ak moom du ñeem ak kenn ndaxte dañoo amoon lu leen di sawarloo ci ki ñu jàkkaar loolu ñimiwu ñoo mooy yàlla ndax ki ñu jàkkaar loolu ñimiwu ñoo wax lu bon ngir ki ñu jàkkaar loolu foofu la ñu meloon Anas ibnu Maalik radiyallahu taala anhu dafa nettali lu neex ci yonent bi mhm. sallallahu alayhi wa sallam nee na bi nu xamee ni ndekete nekk ak yonent bi dara la ci suñu jëmm yi mooy keroog bi ñu ko dencee bi ñu ko dencee fëgg sunu suñu loxo yi ci suuf si rek la ñu tàmbalee yëg ak wàcc ci suñu jëmm yi nga xam ni kon ndekete euh, euh, jaamukatub yàlla bu àgg ci yàlla ak nekkam fi sa wet dalay yar waaye ak nekkam fi sa wet yóbbu ci yàlla xanaa kon tàggat gi mu leen tàggat si jaamu yàlla tax na ba sëñ bi bi mu delloo si boroomam mhm. ñu di ko waajal ba fajar jot ñu teg lépp dem julli waaye ñëwaat doog a àggale liggéey subhanallah xam nga loolu mooy war ne ay kalfeen la fi bàyyi woon mhm. bàyyiwu fi gone bàyyiwu fi gone eh, te it moo jaadu dafa ñëw di jàngale yàlla mhm. bu fekkee na ñi ko toppoon kenn xamu ci yàlla mhm. njàngale mi doxul sa daara jee bu fekkee ne kenn du ko mokkal wax dëgg yàlla nag kon at mi woon ak kon nag sëriñ bi bu fekkee amul ponkal yu gaa yi joxoñ yéen la ñu man ni kii kat waaja la wax dëgg yàlla bu boobaa dañuy wax ne dafa échec. waaw ah, waaw te moom nag am na gaayo am na gaayo waaw am na gaayu mel noona mhm. xam nga kenn ngi ci nii di wax baat boo xam ne sëñ day mel ni sëñ bee ko waroon a wax. Mhm. muy Maulana Cheikh Mbacke Bousso nee na. Mhm. dafa am benn bis mu mel ni kuy sant boroomam ci xam-xam. nee na mënumaa gàgg ci xam-xam. ndax wa isa rafaatu min al midaadi li xirtasi xalaman xabaani kullu arfin. macha allah waaw ah, kooku bu mel noonu nag. Eh, nee na bu ma yëkkatee xalima. Mhm. képp ko ci daal di ko teg ci kaw euh, kayit mhm. arab yàlla yëpp dama koy xam. arab yëpp day ñëw ci man. Mhm. loolu nag wax yu yàlla la borom bi subhaanahu wa taala ilhamu borom bi la. subhaanahu wa kon jàngalekat bi mokkal la wattaqullah wa yuallimukumullah wa yuallimukumullah bi jàngee rek. yàlla mi nga xam ne nii moom moo xam lu ne. yàllaay joxe xam-xam. sëriñ bi. yàlla joxoon na ko xam-xam boobu mu doon jox gaa yi euh, dama doon wax ni Rukaabu Leyli ci maam Jaara bi mu bindee leetar sëñ Daaru Asan Njaay maa ngi nuyu waa Njaara Njaay yépp doon jaamukatu yàlla bu mag di jàngal ñu mu dendal jaamukatu yàlla am na benn donga bu doon jàngee ci benn dëkk ci dëkk yi dend ak moom jamono boobu muy nettali ni sëñ Daaru Asan Njaay njàmbur gépp da leen a forcé ci ñuy koor koor yi ngàtt nga yi te mësu leen koo wax mu ni nu mu ko daan defe mu ni bis bii bu ñu nee bis suba bii lay woor maanaam dañ koo baaxoo woor mag mu ne dina la yónnee ndogu mu ne dina yónnee dara ne ah. la ndog xekma loolu xekma lii ndogul ndogul yi maanaam ndogu yaa ngi noonu nga xam ne fokk <laughs> nga xam ni kon boo sàgganul ni man mhm. da ngay xam ni kii dara ne demal nga woor kooku nag maam Mor Diallo bind ko benn bataaxel ni ko sama xarit nga lool sama wëllëre nga lool waaye dama laa gëj a gis. Mm-hmm. mu bind ko beneen bataaxel moom itam ni ko li tax nga gëj maa gis damaa am gan. Mm-hmm. te bokkul ci man gan nag bàyyi gan di gane yi. Mm-hmm. gan gi nag mi ngi ci leetal fekk daa dagg ci bijaaw bi dugal ci. wala ni ko nag amatul jot léegi. amatul jot ndax bijaaw bii. bi bijaaw ñëwee ba léegi mënatul a def lu dul beer leer ko. foofu la gaa yi nekkoon. kon ñooñu ñooy gaa yi dëgg dëgg ñooñu mas naa leen di melal ci benn xasida ma ni darahum kitaabullahi wal leylu wa duaa wa qawmun ufaatun mm-hmm. wal makaarimu wal hudaa dawiyuhumu kan naxli mm-hmm. fi jawfi leylihim waraa qaadimin sarxa sariati sayada ñooñu daal mm-hmm. euh, boo nee alquran alquran ni maa taxoon ñu ñëw fi boo nee julli yoor yor ñu ni maa taxoon mu ñëw fi boo nee berndeel gan ñi ñu tax ñu def mu defee ni moo tax ñu ñëw fi kon ñoom baax yépp sëriñ bi da koo sol ci ñoom ba ku ñu toll dañuy baax rek macha allah sëñ Cheikh kàddu yi am na solo xam naa ni li baaxoon sax bàyyi la nga dem <laughs> waaye liggéey bi ku ne xam na ni dafa am nu muy lu muy tëddee waaye dañoo seetlu sëñ bi ni mu fonke woon jàkk ni mu fonke woon jumaa waaye da gis ni dëkk bi ñu koy gën a jaamu yàlla ak yeneen i dëkk yoo xam dañu fay jaamu yàlla mm-hmm. da gis dañu fay defar juma wala mm-hmm. jàkk mm-hmm. waaye tey bu julli jotee sàpp bu njëkk bi sax bu feesee ñaare ba doo fekk te itam wax na ne am na ñu bari ñoo xam yëkkati na ay kàddu yu tar jëme ko ci seen kaw ngir nodd jot nodd ñu wax nañ ni koo xam sax ci nafaxaatul miskiya fi siratin bakiya bu Abdoulaye Ibnu Rahmaan al Alawi boobu koo xam ne sëñ bi da ko digaloon muy berne gan gisu ko si jàkka ji bi ma ko woowee bi ñëw dana ko demal ci dëkk bu la neex man du ma ànd ak nit julli jot mu bañ a fonk julli jumaa julli jàkka julli jàkka te itam Cheikh Amadou Cheikh Amadou Bachir wax na ne sëñ bi dund na juróom fukki at yoo xam ne tiimut donte ak la koy dale si ay feebar ak nga xam lislaam doo koy may sax mu tiim waaye ànd ak loolu lépp fonk jaamu yàlla daf ko may jaamu yàlla gu njàpp mu bees la koy jox te itam jàkk ju ne boo noddul bu julli jotee day ñëw nodd jiitam mbooloo mm-hmm. loolu kon lan lañ si mën a jànge si jamono ji ñu toll nii waaw jamono bii ñu mooy euh, danoo jàngatul sëriñ bi dañuy jàng suñu bopp ay daanukat lañu ab daanukat waxtaan yi defalu ko kenn ku dul boppam daanukat ab daanukat hmm. boppam képp ko tax di daan hmm. ndax daa bëgg ko naw hmm. bëgg ku ne waajaangee bëgg ku ne ku amuk taalibe la kooku dara génn ko ci daanukat sëñ bi amu ci dara waaye ñi nga xam ne <laughs> waaye daanukat dégg naa sëñ Abdou Khadir nee na moom daanu ayut waaye boo daanoon ñu raw la ginnaaw boo muccee si rëq ak mhm. damm ak mbubb mu xati ko wallahi alazim mhm. gis nga dama ciy nett li lu am solo euh, euh, ku ñuy wax Baye Serigne Seck moom la ñu tuddee Serigne Seck mi mhm. góor gu xaramu la woon euh, day wax Serigne Soy bu maam la koy wooyee xale yi dañ ko daan tooñ ne ko Baye Serigne daal yow da ngaa daanu kate mu ne déet bu leen ma ko waxaat ndax murit ñaar rek la yéen a ko wax yéen jànkar yi kuy yéeg ak kuy rooti da nekk ci tarqiya ak tarbiya mu ni kuy yéeg bu rootee ba doyal maanaam ku yéeg bu yéegee bu daanoo nu muy def mu xanaa dam mu ni ah, hmm. baa mu deekee hmm. kon loolu baaxul hmm. mu ni ko root yi itam bu daanoo nu muy def mu ni la bu day daanu mu ni kon bàyyi leen ma ma jafandu ci maam mii rek oh, kon loolu daf ko daan yaraxee daf ko daan wax waaye lu dañ cee jàngal lu bare bari ndekete woo loolu du mbir mi Euh, te it bëgg ku la naw moo waral yëpp ba tey wax naa ne nag bëgg handicap la waaye jaamukat yàlla yu dëgg Sëriñ Tuubaa nee na boo leen laajoo ni leen mooy moo kuy af saxul fos saaqi ki gën a saay-saay ci àddina bi kan la ku ci ne dóor dëndal ni man mii la man mii la waaw gisuñu seen bopp waaw ñun ñi gis suñu bopp nag ah man fii ne li may def man dinaa jàng ci xasida loo xam ne nii mhm. alquran nag naan te nag damaa tabe bëgguñu naw la daal waaw damaa tabe lool man al mhm. du ma dee ci alal mhm. damay joxe rek loolu yëpp <laughs> loolu yëpp ñàkk mat la dafa bëgg ñu naw la rek <laughs> daa bëgg ku ko naw rek ah. <laughs> eh, waaye fa sëriñ ba nekkoon ak ña mu doon yar meluñu woon noonu sëriñ Soaybu radiyallahu taala anhu danaan toog ba guddi mu jël ab oto wala ci def ci dugub wala mu def ca ceeb mm-hmm. ni kër sàngam ak kër sàngam dugal leen ko fa ndànk te ngeen fexe nag ba buñ leen yëg ginnaaw bi mu ne dee leen jël sare ndaxte oto dee xumb mm-hmm. di ko yóbbu mm-hmm. na nga fexe ba kooka bu mu la yëg jëmmi yàlla rek ixlaas xam ne da koy def guddi gu lëndëm di ko rek tegal la ko loolu njàngaleem sëriñ bi la euh, lu muy jox nit ki itam dana fexe ba kamu dendal du ko xam du yëg ne sax jox nañ ko ndaxte kam koy yónni dana la woo ba ngeen sori jëkk macha allah njàngaleem sëñ bi ñoom dañ ko doon tatbiix di ko mm-hmm. jëfandikoo mm-hmm. maanaam duñ ca bàyyi dara kon nag naka la nun mm-hmm. naka la nun nun ñi nga xam ne nii xëy na bu buñ dee askan duñu mbokk buñ dee dund ak moom bokkunu lu nekk ñoo nu ko gën a jege ba noppi gën loo bëgg kuy sëriñ bi jël seen dund gépp jox ko sëñ bi di jaamu yàlla na nga xam ne noonu la ko sëriñ bi doon defe ñu daq jaamu yëpp di julli julli juróom di woor weeru koor di jo di def yu dul jeex hmm. mas namaa dégg euh, al oustaz Dame Touré hmm. rahmatullahi alayhi muy nettali nii dafa mas a jamono ba muy doon waxambaane di arabisant buy door a génn rek hmm. dafa nekk ndakaaru gi moo ki moroomam nee na may dox benn bis ba yem ci sëñ Saliou sëñ Saliou ni ma daam yéen xel yi sëñ Touba yi dem leen ngeen liggéeyali ko nee na bi mu génnee waa ji ma àndal ni ma yow de ñee naa la yow bi sëñ bi nongo ni ci xel yi sëñ Tuubaa nga bokk mu ni ma nag ma fekk nguur nee na ma fekk ko mu dugal ma ci néeg boo xam ni la fa di fel kenn xamul mu toll mu waaj mu julli jee ba noppi ni tuuti mu ñëw kàbbar fi sama kanam di julli di julli tàmbalee baqara man a xëy na wow saar rek lay jàng ba ma nelaw yeewuwaat fekk ko ca kaamil ba ba ni mu ëgsee minal jinnati wan naas ma xam ne da doon wàcce kaamil bi ci biir naa fi laam yooyu la fel yi xaw maa rey te fekk na dafa ma woo ni ma bu fajaree balaa nit ñi ñëw nu dem fi ma lay liggéeyloo yàlla dogal nit ñi ñëw fa nit ñëw daal ci seen kaw nee na ci ëllëg sa mu ni ma demal kër diw nga fanaan fa ngir yërëm ma ci fel yi moom nekk ci la mu nekkoon waaye na nga teel a ñëw nu julli fajar daw macha allah nee na ba nu fajar ba àggal <laughs> nu ànd dem ba ca donga mu woo leen ñëw mu ne ko damaa bëgg ñii saa bu ñu jëppee ndax lii ñuy def day di ma ko liggéeyal damaa bëgg mu woyof ci man ma it ma defal leen dara ba bëgg saa bu ñu ne cëpp gopp bi rek nga tëralal leen ba ñu am xam-xam daam neen def naa ko juróomi at kon moo fóoreel fóoreel fa nekkoon xam nañ ko loolu moo doon liggéey nga xool xoolal kooku liñ koy jox ci addiye ragal na koo lekk mm-hmm. dem na ba ragal ko ndax lu mu ko wotte mm-hmm. muy wëri lu mu ko wotte mooy jàngale macha allah mooy lu mu ko war a wotte ngir dimbali nit ñi waar leen mm-hmm. foofu la gars yi nekkoon te ñu macha allah sëñ Cheikh sant nañ la bu baax a baax wax ji am na solo xam na temps bi sax Euh, moo gàtt. waaye nag indi nga loo xam ne moom saafara la. Mm-hmm. rawatina kalima jumla boobu nga xam ne moom or lañ ko war a bindee yéen ndaw ñi doole yàlla jox dem na ngeen liggéey si Tuubaa. waaw <laughs> loolu moom nee naa kalima. Euh, tustaxaqu yaani min an. <laughs> min zahab. kooku moom mm-hmm. dañ ko war a bind mbindum or. suñu mm-hmm. seex ñu ngi lay jaajëfal bu baax te di la sant ku ne xam na ne jot gi amut. waaye toujours rek sa dund gépp nii nga ko def mhm. maanaam tasaare lislaam mhm. jàngale suñ Tuubaa ngir delluwaat sa mag ña waaw mhm. suñ Tuubaa mbiram sotti na mag ñi tam seen mbir sotti na ñun ñi nga xam nag daanaka ñoo fi des eh, ñaan yàlla rek borom bi tabaaraka taala yéegal ni si waaye nañu jéem a góorgóorlu baax a baax te xam ne bakkan moom loo ko tàmmal rek hiya nafsu maa xamaltaha tataxamal da eh, dégg nga wali daxre ayaamun tajuru wa taadul nit ki moom lu mu tàmmal bakkanam rek mën na ko man boo tàmbaloon sa bopp guddi gu ne nga jóg naafi la maanaam incha allah yàlla mën na laa may guddi gu ne nga di ko man naka noonu wóor naka noonu jàmm yàlla kon bokk yi loolu lañ leen andiloon tey ci suñu émission yaru ak yare di ko ànd ak yenn saa su ne ci waxtu wi incha allah tàmbali ko ci premier safar ba 18 safar di ñaan li ci jàll lépp borom bi taala defal nu ci aw yiw waaye defal ñu ak dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu